lu ngeen nekk nekk gone nangeen xam ne def nañ ci yéen yéene nañ ci yéen te danañ def ci yéen loo xam ne nii ay melokaan ay roykat ngeen ngeen war a fépp fu ngeen dem ay roykat lu ñuy roy ci ñoom ngeen war a nekk te itam alhamdulilah loola dafa mel ne sunu boroom daal na koy nangu ndax barkeel gi mu barkeel la nga xam ne turu soxna jaara wañ fay def ba melaw soxna jaara wi nga xam ne moom lañ jiital ci yar ba yàllaan koy commencé def ci yéen loolu nag lu ngeen doon gon gone yàlla def na ci yéen xelum mag ndax ku yàlla def ci moom alquran def na ci yow xelum mag ñu def ci yow melay alquran waxi noppi kon jëmbat nañ leen ci yoo xam ne nii ñi nga xam ne ñi ngi dem nañ xam ne fuñ man di nekk nañuy xam la nga xam ne moo taxoon seeni waajur dugal leen fa Cheikh Moustapha bëggoon kër ba yàlla dugal leen fi ba mel noonu bañ génne fa mel noonu kon nag mela yooyu nañ koy yóbbaale fu ne ba nekk waxtu wu ay royukaat ci seeni maas loolu itam maa ngi koy gën a jëmale ci ñi nga xam ne maam jaare yi nga xam ne génne nañu fa buñ jéem roy kenn lu dul melo yu nga xam ne mel nañ ko def nañ ko ci ñoom ñuy war a continuer bañ roy ci ñoom waaye buñ gis lenn ci ñeneen ak ci keneen ba di ko jéem a roy nañ xam ne lañ def ci ñoom mooy la gën kon nag loolu ñoom ñoo ko war a wone war koo dund war koo dund fañ nekk ba ñëpp gis ko ci ñoom bañ di ko roy ci yéen kon nag gone yu ndaw yi nga xam ne ñooy tàmbali itam loola la lañ doon doon gone ñi nga xam ne dañ fay doog a ñëw sax yàlla def na ci ñoom ay melo yoo xam ne nii fuñ dem danañ ko fa yóbbaale ba seen morom yi mu nekk ay roykat ci ñoom loolu mooy li am solo kon nag li ñu waxoon li nga xam ne soxna maam Awa mi wax na ko fi Ablaay wax ko fi mu jógee ci parent la kon nag ñoom itam nañ xam seen responsabilité bu rëy boobu ñoom ñi nga xam ne doon nañ ñaan yàlla ak njaboot guñ tuddee maam jaara ñu génne foofee di ñàkk fa dugg fa kon nag nañ leen gën a dimbalee ci loolu fas yéene loolee ñu fa ëndaale mooy alquran ja ak melowa ak yarba ñu di leen ci gën a ñaax gën a ànd ñoom ci loolu ba seeni moroom di ko gis di ca roy kon nag daje bii tey nga xam ne daje bëgg-bëgg Cheikh Moustapha la te bu fi teewu tey ku ne xam na ne soriwu fi ku ne xam na ne xolam sedd na ci li nga xam ne moom la bëggoon te yàlla dimbale ko ci muy résultat bi tey at mu jot loolu am na xale bu ma ko wax bu ko wax bu ko seeree xam ne sëñ Moustapha jógu ci ñoom waxtu ne kon nag loolu na ko xam na ngeen koy dundoo Cheikh Moust mu Mountakha mi nga xam ne moo fi nekk bëggam yépp mooy bëggug Cheikh Moustapha googee loolee mu continuer ci yoom nekk ci yéen loolu itam responsabilité la kon nag da ngeen ko dund da ngeen a fas yéene wéy ci loolu lu lu ngeen lu ci nit tuuti tuuti tuuteetu ndax alxuraan a ngi ci moom wala alxuraan la ñuy def ci moom kon nag na ngeen continuer ci loolu màgg ci loolu wéy ci loolu ànd ci liggéey boobu waxoon naa fii ne leen aw jiwu ngeen jiwu woowee nag ndax ëllëg lu sosoo ci yéen rek am ca loola jëlee naa lu sosoo ci yéen waaye lu xool ci yéen rek jéema mel na yéen kon nag bu leen jàppee seeni bopp ay gone ñu yàlla dimbale leen ba ngeen wuti alxuraan alxuraan gone mënu koo yanu mag a ko yanu ku yàlla def ci moom melaw mag kàttan gum ko mën a yenoo rawat na ji bu fekkente ne dañ cee jublu itam ci njaal biir nga ngeen yor melow alxuraan jikkoy soxna jaaro melow soxna jaara na ngeen xam ne bu leen ñee kenn seen menn moroom dañ leen war a ñee na ngeen yëg seen bopp am fierté ci seen bopp xam ne li ngeen nekk ñu seen moroom yu bare baree bari bëggoon bëggoon nañ ko te mënuñ ko am yàllaa ko dogal ci yéen kon nag loolu na ngeen ca te xam ne mooy liy jariñ moo leen di jariñ tey jii ci ngeen nekk waaye mooy jariñ ëllëg te mooy jariñ mbooleem kenn ku ne fa nga nekk fa ngay dellu itam loola njariñ loolu mu am ci yéen day continuer ca foofee kon nag njariñal senegal ngeen da ngeen xam ne loolu ko kon responsabilité bu rëy la lu ngeen nekk nekk gone na ngeen xam ne Sénégal gi li muy néew néew ak li muy bari bari ndax buñ ko seetee ci yéen mën nañ ne bari nañ waaye yéen seen tees bi delloowaat wat Sénégal gépp société sénégalaise ci sunu borom ci la nga xam ne moom la sunu borom bëgg ci société bi ndax loolu lañ bëgg ci yéen ngeen tasaare ko tasaare ko ci seenu ëllëg fu ngeen mën nekk tasaare ko ci seenu melo te saare ko ñi nga xam ne ëllëg yàlla dana def ñu man di jàngale leneen ak leneen kon nag li ma bëggoon a wax rek adressé ko ci yéen gone yi ngeen xam ne baatu gone buñ ko dee jëfandikoo ci yéen it du ngeen di ay gone ndax alxuraan gone du ko yenoo kon nag yéen ñii jëlee naa ñi nga xam ne mokkal nañ ko waaye kuñ destine alxuraan rek du too gone rawat na ci yéen yi nga xam ne yàlla dafa def ci yéen bari na ay daara yu nga xam ne dañ fa yóbbu nit ki kooka daanaka dafa nekk ba mag du xam lu tax ñu yóbbu ko fa daanaka force la fay nekk waaye yéen yàlla daa def ci yéen loo xam ne nii foofa ku fa dugg daal di xam la nga xam ne moo tax mu dugg fa muy yar bi ngeen di jullee yarub bi nga xam ne mooy yarub soxna jaara melaw soxna jaara bi nga xam ne moom ngeen yanu tur bi responsabilité la lu ngeen nekk nekk gone na ngeen ko teel a xam te itam na ngeen xam ne seenu nekk fa ni itam bu jàppandee ay nit ñoo sacrifié def lépp ngir yàlla pour jàppandal seenu nekk fa loolu itam bu leen ko fàtte ndax bu fekkente man ngeen fa nekk da nga xam ne noonu la ko Cheikh Moustapha bëggee woon seen dara manqué wut te kenn ku ne yëg ne amul dara lu manqué soxlaa luñ leen dara lu jàng alxuraan loole ay nit ci nekk ñoo ciy sacrifié ñoo ko ñoo leen di taxawu ñoo ciy def seen melaw di def ci seen alal ñi def ci seen xam-xam ñi def ci seen taxawaay kon nag loolu yéen a tax loolu itam lu ngeen nekk nekk gor xëy na ngeen xam responsabilité bu rëy boobu ñëpp am ko ci yéen tey itam nit ñi di sacrifier seenu bëgg leneen ngir seen bëgg yéen ngir bëgg li nga xam ne bëgg nañ ko ci yéen ci lu baax yàlla def ko ci yéen ci lu baax kon nag yàlla na leen yàlla gën a aar yàlla leen yàlla taxaw yàlla na yàlla àggale yéene Cheikh Moustapha ci yéen ba kenn ku ne yéene jooju ak mele woowu nga mën ko àggalewaat fépp yàlla na leen yàlla sàmm ñi nga xam ne taxaw nañ ci liggéey bi moom sëñ sëñ Muntaxa moo am seen moo sëñ Touba am seen Touba yi sëñ Muntaxa moo fi sëñ Touba kon nag ñaan nañ ko yéen ñëpp kenn ku ne ci barkeem yàlla gën laa taxawoo gën laa nangul liggéey bi gën laa nangul sacrifice bi nga xam ne ñëpp a ngi koy def ngir bëgg-bëgg bii nga xam ne mooy bëggu bëggub sëñ Touba ci nit ñi mooy bëgg-bëggub Cheikh Moustapha yàlla dimbale ko bam muy wut liggéeyal sëñ Touba liggéeyal maamam ja yàlla xiirtal ko ci loolu lu nga xam ne ku ne ku ne bëggoon na ko te mënu ko mu sos lu mel nii kon nag nun ñëpp ameel nañ ko njukkeel yéen ñëpp fu ngeen jëm da ngeen xam ne Cheikh Moustapha moo waral lii tey moo leen di delloowaat ci sëñ Touba delloowaat leen ci soxna jaara ba ngeen yor melo yu soxna jaara loolu Cheikh Moustapha réew mi yëpp la ko defal na ngeen xam ne fa ngeen nekk Sénégal gépp ngeen fa nekkal yàlla leen yàlla gën a tax yàlla na yàlla nangul ci yéene Cheikh Moustapha joojee ba yàlla gën koo tas ci réew mi gën koo def ci yéen yàlla mbooleem ko ci def ñu bareen ciy def mbooleem ko ciy def noo ngi koy gën a sant di ko delloowaat ci sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa moo am payut taalibe yi yàlla leen fay kenn ku nekk yal na yàlla taxaw di ñaan nag di gën a ñaan bokk yi nga xam ne ñoo fa am ay ay ay ay ay ay gone kenn ku ne gën a taxaw ci liggéey bi kenn ku ne gën a taxaw fa nga nekk ci daayira maam jaare yi kenn ku ne fa nga nekk yow bi nga xam ne seere nga loolu na nga gën a nekk jëwriñ ci liggéeyu maam jaare bi gën koo xamle gën caa nekk gën caa nekk di soññee ndax loolu kat nit ñi def moo waral lii tey kon nag na ci kenn ku ne soññi sa morom na ci kenn ku ne nekk na ci kenn ku ne taxaw ba lii gën di wéy tey itam day gën di wéy na ñëpp xam ne suñ bëgg-bëgg mu doon bëgg-bëggub Cheikh mustafa moo doon da tey ji daara ja ñetti junniy maam a nekk ca ndax moo bu sañoon mboolem daayira bu nga xam ne am na tey ci àdduna si da nga fa amum maam jaara loola bu fekkente ne dana am incha allah waaye kon tey jii ñetti junniy maam jaara nekk ci ngeen xam ne ñetti junniy maam jaara na ñépp seere loolu xam ne juróomi téeméer yii fa nekk la nga xam ne lañ ko fay def muy walante ñuy bëgg-bëggum nit lu nga xam ne lépp lépp fere yi yëpp ko ko seetlu daanaka day bëgg jege ñaar fukki ñaar fukki million ci weer te loolu lépp pasteefu taalibe yi fu maam jaare yi daayira maam jaare yi ànd ak taalibe yi moo ko waral kon nag ñoo ngi gën a ci waxtu wii ñëpp seere lii gis lii noo ngi gën a soññ mbooleem ku nga xam ne yaa ngi ci ak ku nga xam ne xaj na xamoo ko woon ba tax na nekkoo ci yoon nga xam ne liggéey bii liggéey bi sëñ Tuubaa la ku ñor sëñ Tuubaa sëñ ba amutoon genn bëgg gu tegu ci alxuraan loola lañ fay def loola la xamle kon nag loolee nan fas yéene bëgg-bëggub Cheikh Moustapha boobu yàlla def ci maximum maam jaare yu nga xam ne dañ leen fa mën a def kon nag na ci kenn ku ne jóg te lii seere na ci njariñ njëriñal liggéey seere na ci liggéey bi ne kenn ku ci def ku ne seere si mooy ngi ca ñoom la jëm yàlla rek a tax nga di ko def te kenn ku nekk ku def ci lii ku nekk ku ne xam na ne danga nga am tawféexi alquran da nga am yoonu kuy liggéey ci alquran kon nag maa ngi gën a ci waxtu wi ci bis bii solennellement maa ngi gën a soññ ñëpp ñëpp laay wax jël naa daayira maam jaara yi waaye waa kër sañ Tuubaa yëpp ñëpp gën a xam ne liggéey bii liggéeyu sëñ Tuubaa la liggéeyu alquran la na ci kenn ku ne taxaw ba lii ci Seex Moustapha bëggoon yàlla dimbale ko ba mu xalaat ko yàlla defal ko ko te dana ko ko defal kon nag bokki taalibe yi ñi nga xam ne ñoo nuy seetaan ñi nga xam ne ñoo teew fii ak seeni xol ñi fi nekk ñëpp ñoo ngi leen di gën a soññ ci liggéey bi te itam yaakaar naa lii ab soññ la gis lu mel nii ñu mel nii yàlla def ren jii rek fanweeri nit ak nangam fanweeri jigéen a fanweeri jigéen ak nangam mokkal ci alxuraan nga xam ne boobaak léegi loolu lay waxtu si dama koy répété li nga xam ne mokkal na alxuraan en tout cas li nga xam ne bind na alxuraan ci daara li ma wóor mooy ku doon seet histoire au Sénégal jigéen bind ko ci ay kaamil lépp buñ ko limoon duñ ko comparé ñeent fukki yi nga xam ne bind na alxuraan ci daara kon nag dara lu nga xam ne musta am ci liggéeyal yàlla ci alxuraan liggéeyal soxla jaar ci alxuraan kon nag na ci kenn ku ne def nga xam ne mooy kenn ku ne mooy sañ waaye lii mooy njëriñal réew mi la ndax mooy dugg ci li nga xam ne mooy soppi melo yi soppi jikko yi ëllëg waxtu woowu jot nag ku ne dégg na fan yi li nga xam ne Cheikh Moussa Cheikh Mountakha jógaat na ko ci gën a defaraat jikko yi waaye implantation bi nga xam ne moo koy dajal ëllëg mooy yéen kon nag yal na yàlla àggale yéene Cheikh Moustapha ci yéen yal na yàlla gën a taxaw ñoo ngi sant ñëpp di beral ci cant gi waxoon nañ ko waaye ñi nga xam ne ñoo koy tas itam muy presse bi maa ngi leen di sant bu baax a baax a baax ndax lii dafa laaj xamle dafa laaj yëg ndax laa biire jullit yi la yëgle ko jullit yi ndax ñëpp lay jariñ kon nag yëgle gi rek ci liggéey bi la bokk kon nag ñëpp ñoo ngi leen di sant leen ñaanal yàlla defal leen ndam ci seeni liggéey te ñuy gën a tasaare lu xaw a lu mel nii te itam xam ne seen liggéey ci réew mi am na njariñ waaye nañ koy jëmee ci jëm def lu baax wax lu baax di wax dëgg di ko di ko jëmale ci nit ñi loola bu boobaa jël naa liggéey bu mel nii bu boobaa waaye liggéey yi ñuy lëggaay yépp lu amal njariñ lay doon lu amal njariñ réew mi lay doon kon nag liggéey bi itam maa ngi leen ci gën a sant bu baax a baax bi nga xam ne presse bi ñëw nañ di ñaan lu mel nii bu amatee te ñëpp gën a ñëw ndax gën koo tas laa biire nit ñi ci xam gi ci gis gi jërë ngeen jëf ñoo ngi sant ñëpp soxna maama jërë ngeen jëf suñu suñu taxaa moo leen santal boppam waaye mu ànd cee cant googu rek gën koo yëg ne li leen di def ñëpp xam nañ ndax loolu moom jërëtut a wax résultat baa ngi kuy def dara lool nag doy na ndam kuy def dara ba at mu jot nga génne résultat bu toll nii wala bu mel nii doy na sëkk doy na leen sëkk ndam te lépp yàlla tax yéen ñu ko def jërë ngeen jëf sant nañ leen yëg na lool ndam ci seen liggéey bi damu nam ci ñun itam dana génn leen yàlla gën di jox ay ndam leen gën a taxaw bu baax a baax ci occasion bi dinaa seereel nag ñi nga xam ne ñoom itam ànd na maag ñoom ci liggéey bi nga xam ne mooy leeral geeg taxaw gi muy mustaay nii fi teew tey ak ak ak ak ñi nga xam ne danaay ànd ak ñoom ci liggéey bi waxtu mooy Moustapha mi ak ñeneen ak ku mel ne Serigne Seye loolu damay seere rek ñi nga xam ne ànd na ñoom ci liggéey bi nii ñëpp a nekk ci liggéey bi waaye liggéey bii nga xam ne noo ngi ci at yi di ci dox itam ñi nga xam ne gën nañu cee taxaw itam kon noo ngi leen di gën a seere rek sunu cant ci liggéey bi nga xam ne loolu lépp mooy rek génne santuk Cheikh Moustapha génne santuk Cheikh Moustapha bi fi nekk tey ci mbooleem ku nga xam ne yaa ngi nekk ci liggéey bi yaa ngi nekk ci bëggub bëgg-bëggub Cheikh Moustapha boobee kon nag jërë ngeen jëf moom ngi sant Cheikh Mountakha yéen ñi nga xam ne yéenay saytu daara ji ñëpp santuk sëñ Mountakha waxal na leen ko boppam jox na leen ak cantam cantam ci la lépp nekk ci la cantuk suñu borom nekk ci la cantuk sëñ Touba nekk ci la cantuk Cheikh Moustapha nekk kon nag jërë ngeen jëf noo leen di sant leen gërëm bu baax a baax gone yu ndaw yi bu leen fàttee seen bopp fu ngeen mën di nekk na xam seen bopp bu leen jàppee mukk seeni moroom seeni moroom bokku leen yéen alquran nekk ci yow soxna jaaraan nekk ci yéen fu ngeen dem nañ ko fooree dañ koy dund wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf mbokki téléspectateurs yi lii mooy li nga xam ne moom lañ leen jëlee loon fii nii ci euh, Daarul Minan ci maam jaare yi nga xam ne dañoo bàyyeekoo ca Poroxaan ngir jël seeni vacance vacances waaye tamit 32 maam jaare yi nga xamante ni ren ji ñoom mokkal alxuraanul karim ñu leen doon jox seeni i lijaasa waaye ak ay neexal ci teewaayuk Serigne Issakha Mbacke moom Serigne Bassirou mi nga xam ne moo jiite fondation Daara Maam Jaara Poroxaan bi nga xamante ni liggéey bu am solo la ñuy def di former maam jaare yi leen jàngal alxuraanul karim waaye it di leen yar yarub lislaam mu nekk liggéey boo xam ne dégg ngeen waajuru ndonga yi niñ ko rafetloo kenn ku ci nekk am mbégte tey jël si fi sa maam jaara mu jël vacance waaye ñeneen ñi nga xam ne it ñoom euh, maam jaara bi nga xam ne moom lañ amoon ci daara ji dafa mokkal alxuraanul karim ba tey ji ñu jël si ko ànd ak mbégte lool ñu leen santaat baax di leen gërëm dégg ngeen yi nga xamante ni moom la fi kilifa yëkkati rawatina sëriñ Isaaxa Mbàkke mu nekk kàddu yu am solo waaye it mboolem temps fort yi nga xam ne am na fi remise de diplôme yi ak mboolem Maam Jaara yi seen toogaay ba ci arrivée bi loolee lépp ñu àndoon ko ki yéen santaat leen gërëm leen ci teewlu gi ci caméra bi ñu ngi ci àndoon ak Daouda Guissé Mountakha Ndiaye Gabon ak Mountakha Ba santaat leen gërëm leen ci teewlu gi wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf